képp ñëw rek mm-hmm. eh, yërëmal ñu kilifa diine yi kilifa aada yi mm-hmm. yërëmal ñu njabootu Sénégal ñun kooku la ñu àndal waaw yërëmal ñu sunu doom musicien yi mm-hmm. wàññil leen taxi yi nax ñoom waal dañ doon fay lu cher mu metti bu ñu demee bitim réew ku xool Dixi D'or bi gisuñu benn président bu ci rencontré wu te ki ñëw jeune la dina rencontré wu ci ñoom kon maa ngi ñaan nouvelle bi première président bu bees bi nouvelle bi muy njëkk am maa ngi koy ñaan yàlla di ko ko yalwaan am na ko mën na ko yalla na njëkk recevoir xam nga ñi dañuy ñaan coupe d'Afrique ñi di ñaan ne man ma ngi ñaan président bu bes bi di jomay yalla na recevoir dik si dor sek man ma ngi koy ñaan yalla di ko ko yalwaan te yàlla ko def. ci xam nga da nga bokk ci doon yaayu yaayu yëpp ci fan yi ñu gis ku ci wax ñu sa tamit wax ci xalaat te sa doom la te fondé bi doon seen yaay di dox ci gis waaw bu fekkee ne am na parce que man maa ngi koy doog a yëg ne yëguma ko woon heureusement waaw bu dee téye nañ ko yàlla nañ ko bàyyi mu ñibbiwaat ci njabootam waaye di wax ne ndog-ndog boobu ba jullit bu nekk war na ko xaar ndax sëñ Tuubaa ñu gëni capacité te ci moom la ñuy eh, jaar ci moom la ñuy roy te jaar na jàll kon ku jaarul rek war ngaa xoolaat ci sa bopp te yàlla na yàlla muccal benn bu jaam bu ne ba bu mu ci jaar waaye ñi ngi ñaan bu dee dafa am ak nit lu tax mu dugal ko fa yàlla na ko suñu borom génne moom sëñ Tuubaa rek la gëm te alali sëriñ Saaliw la

xam naa ay erreur la rek mais xam naa ki ko def sax bëggu ko bu fekkee ne dafa am lu leen boole ki ko def sax xam naa gënalu ko waaye bu ñu ci gëstuwaatee ba am ci lu leer dinañu xool nu ñu war a jaar ba jaar fa incha allahu rabbi suñ borom na def jàmm. sa digganteeg Mama Diaga lan la woon ba tax na nga jël yaa Wally Ballago diggante rakk ak mag diggante sœur ak grande sœur waaye diggante nit ku bëgg sa doom nga xam ci reconnaissant wu jaaga ak ni mu reconnaître mu reconnaître ma ci ne man damaa bëgg doomam jàpp doomam te yàlla tax suñ borom dogal ci sunu ànd waaye jéppiwu ma ko man ànd nanu ba ànd jeex mais man jéppiwu ma kenn bëgg naa ko tey jii mu fi dëddoo maa ngi ñaan sama kóllëre ak moom lépp lu ma dox ci doomam ji yàlla doon tànk yu mu namm yàlla doon tànk yu mu bëgg ci àjjana jëm tëdd ci barke yonent bi alaatu wasalaam ak mucc ñaan mu yokk ñaan lépp lu ñuy séddale ci musique Sénégal ak lu baax te doomu réew di ko am bu dee yar dina ko maye yàlla dina ko jox bu fekkee ne ay teggin moo koy joxe suñu borom dina ko joxe bu dee xol bu set ak noppi ak nangoo muñ ak nangoo góorgóorlu te xam naan ne na ko def ndax yabee nañ ko ko ci kattanu yàlla ak mbaaxu yonent bi yàlla lafal ko cat rek. Euh, waaw yëgu ko nag par surprise la ko dikkee parce que lool laa ci doon bëgg moo tax jàllale wu ma ko média mm-hmm. daw bi nga xam dama ko wara sargal Kiné bi muy dundu dama ko sargal ci bi muy nek jamono mu contane ci lol am ci mbekté lol ma yaakaar nit boo dee ànd ak mom and bu rafet ba mu dëddu and bobu yakarna yalla yalla da koy gëna saxal ndax sa yo teudé saxal warna nek ci mom ni may xeyé di dem yof di séti non la daan demee kërëm di séti té duma ci wañi dara ngaat naa ma ngi fi ba suñu borom di nam bëgg ci man mu dogal ko ci man ki ne sama digënté ak mom rafet na ba dem luma mënti mom bi mu dëddoo dinaa ko rafetal ba kanam a koy fekk ji ndax bëgguma mu jëppi ma bëgguma koo jëpp te man jëppiwuma ko ca ba muy dem mm-hmm. te yàlla na yéex jërëjëf kàddu yooyu am na solo te amul fay di sant suñu mag yi soxna ay remi ak suñu mag yu baax ji di sant xale yi fi nekk yëpp waa presse bi suñu njaboot yi di sant fifty mi nga xam te tey bis bi tey moom moo ko waral tey di sant di ko mu nek sama dom ba dekk ak mom dekk bu rafet macha allah dara ñaawul du yëkëti ben tànk te neewu yaay du dugg mukk ta neewuma yaay na nga def du genn mukk kërëm gi ta neewuma ma yaay na nga def na nga fanane ma di sant bu baax di ñaanal yalla fam bëgg a yalla na fa egg yalla bu kenn sédalé ci ginnaawam mook jabaram ji ma ngi leen di sant di leen gërëm di wax sama commencement wu contenté tax awma fin di sant ñëpp di gërëm ñëpp xalé yi goor yi demb kenn togul ba presse bi ma ngi len di nuyu bu baax sama dom yi di len santat bu baax te di len gërem di len ñaanal jamm ju bari di nuyu sama goro ndey marim sar, sama dom day far Top di nuyu ñëpp di len sant bu baax di len gërem bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax di nuyu Xadim mi jabaru fifty diko ñaanal yalla yalla na dund ba njabotam gi aw diko ñaan diko ñaax diko wax mu ni ko mu gëna muñ gëna a ko may gudd te bayiko ak njabotam gi fifty sama dom la seetaanuma heure bu xëy dana ma xool heure bu ñëwee dana ma xool maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla bu kenn séddal dal ci njabootam gi yàlla bu kenn séddal dara ci ginnaawam ah waali nag waali ñëpp la yàllaa ñu ci boole yàllaa ñu ci boole ñu koy santaat bu di ko gërëm te xam ne tur bi du chance mérite la moo ko jàppale moo ko téye moo ko tenir kon yal na ko yàlla tenir ci barke Nabi Moustapha xaw ma ko nag gisuma ko mosuma koo gis waaye maa ngi ñaan yàlla yal na ma yàlla gisaleeg moom yàlla bu yàlla yàq tàqale seen diggante mook Fifty yàlla na ko yàlla saxal ilaa yow mi diini ci barke Nabi Moustapha maa ngi koy ñaan ci daraje Cheikh Omar Fouti yu sama maam ma koy santaat bu baax di ko gërëm lépp lu mu def ci Fifty yëg naa ko xam naa ko te Fifty sama doom la ni muy xoole yaayam noon la may xoole yaayam it kenn gënu ko yaay Fifty mi kenn gënu ko mère Fall maa ngi koy santaat bu baax di ko gërëm te xam ne doomam du ko ndaw Fifty am na yara am na teggin am na sutura am na jàmm am na salaam maa dëkk ak moom te lépp lu ma wax ci moom ci moom laa ko gis naa fekk du ma ci fekk ndax damaa woor yal na ko yàlla taxawu sàmm ko sàmm njabootam gi bàyyi ko njabootam gi Fifty bëggul dara day daw rek ngir njabootam soxlawul dara amul bëggul coow bëggul seytaane bëggul wax ju sew Fifty bëggul dara set bëgg njabootam daw indi njabootam loolu li Fifty xam xamul lenn lu bon xamul dara lu ñaaw am ak ñëpp jàmm nag maa dëkk moom fii te li ma wax nii yàlla dégg ko yal na ko yàlla fay xolam bi cër gi mu jox yal na ko suñu borom bi delloo ci barki Nabi Mustafa waaye nag maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi koy sant di ko gërëm te di ko xamal ni ko fifty mii àndam ak moom yàlla bu mu yem tey yàlla na continuer illaa yow mi diini ci barki Nabi Mustafa xale yi sant naa leen bu baax leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm yàlla na seen taxawaay yàgg lépp lu ngeen dox mu yiw yan na leen ko suñu borom bi fay ci barki yorante bu tedd kontaan naa si yéen mbaaye maa ngi lay kontaan di la ñaanal jàmm toogoo taxawoo noppalu ko woo macha allah kontaan nañ kàddu yooyu am na solo